constater avec nous, bon, d'abord, euh, ce que le, ministre a édité pour toutes les gares pour la préparation euh, de la reprise des activités. Euh, d'abord, la sensibilisation et fin prêt, monter des équipes pour le nettoyage des voitures, préparer des, des, fûts de 100 ou 200 litres pour laver les mains, le port obligatoire de masques, le manifeste pour identifier tous les passagers qui transitent à partir de cette gare en plus, comme vous l'avez vous l'avez vu hier, on a passé sur la presque avec euh, le service euh, de désencombrement pour désencombrer la gare routière et attendre la, la visite du ministre euh, qui devait passer ici demain matin. lii ñu dugg yàlla àggale ñu ko man candidat la Mag Fallou mii ñoo demoon élection mais moom it démb wax daal ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ku ko dégg ndax xam ne Pape Sagne wax loolu ndax moma wo woo autorité ñu bokk tok waxtaan ñu bokk dëkk bokk lepp nak dañoo demoon élection élection yi jeex na élection jotagut dañu wara andano àndandoo bokk ndey bokk bàyyi te muy dëgg si ñun ñu bokk liggéey dëkk bi defar garu ceer bi ba ñun buma fi joggé wala moom mu jóge fi suñu dom ne fi am jamm waye xalé yi nga xam ñoo doon remplacer léegi bu ñu duggalé seen bop jëf ju bon ak wax ju bon bu ëllëgee dara du fi baax te fi ñoo koy defar kenn duñu ko défaral kon maag fal ñu and pour défar garu ceer bi pour défar département bi pour def dimbali chauffeur yi pour dimbali nit ñi Force est de constater que l'autorité a euh, procédé à des assouplissements à tout niveau et que la gare routière de Rufisque va, euh, va vivre sa réouverture. Sur ce, nous nous sommes pris sur nous-mêmes pour venir à côté de ces organisateurs pour les aider dans la sensibilisation, dans l'accueil et dans l'accompagnement de ces personnes qui vont transiter à travers la gare de Rufus. Parce qu'on ne peut pas laisser en rade cette euh, organisation du moment qu'il y aura un, de, euh, de personnes et qu'il va falloir aussi les sensibiliser, mais surtout, surtout veiller à ce que les dispositions soient euh, prises dans les voitures et aussi

mu jege oote yi bari si man si laa ñëw bi ma ñëwee dindi sama bagage yëpp yi nekkoon si biir bi ma ko dindee daal di denkaane si beneen cantine ñu ne ma da ngay man ndax yéen da ngeen di bi ñu ne dañuy dindi yëpp mais demal si chef bi ma dem si seen chef bi ki nga xam ne mooy ordre pour ñu daaneel cantine yi mu ne ma yow comme ñëw nga dinaa la may jox ma six éléments yoo xam ne nii suñu ñëwee bu ndaraan bi ñëwee ñu yëngalal ma si suuf ñu déplacé cantine bi man ko génne ndax man sama kër soriwul waaye suite laa gis bi ñu toogee fi ba ay 3 heures du matin ñu oñ ñoom ñu wàcce ne dañuy bàyyi ba suba bi ma génnee di dem ba yegg sama kër si la ñëw daaneel cantine ma ñëw si fajar gi pour déplacer cantine bi pour bala ñoo ñëw sax di ko yëngal fekk man ma dajji ka ma ñëw fekk ñu ma ñaxee cantine bi sànnil ma fa fale àjjuma ren ñëw nañu euh, préfet nee na bépp oto bu yàqu boo xam ne kenn dafa liggéeyoo leen si génnee leen ko garage bi ñu génne oto yu yàqu yëpp ba ñëpp dem samedi ñu xëy ñu waxaat ñu samedi ñu nettoyé ñun ñoo bare fii ba mu set ñun ouvrier ñoo bare garage ba mu set biñ ko baree ba set ñu jël dem ñibbi bin ñibbee demb ay 23 heures 14 ren ñu oo nañu gars yi ñëw nan ñu ngi daaneel cantine ñu ne loolu nu mu mën a nekkee yéen naka ngeen mën a daaneel ay cantine te avertir nit ñi waxoo leen nit ñi cantine yi dafay jógee ñu ñëw biñ ñëwee fekk fi ñu commencé di yàq yenn cantine yi les occupants de la gare ont reçu des sommations qui datent même plus de trois mois. Et puis ces sommations ont été euh, rédigées par le préfet et distribuées par la police. Par la police, ils ont tous reçu des sommations. Seulement que bon, ils avaient euh, l'habitude, chaque fois qu'on les somme, bon, après, euh, ils reviennent encore, quand on les dégrippe, ils reviennent. Mais je crois que vous êtes témoin et que moi j'ai fait deux ou trois opérations de très grande envergure en nettoyant cette gare, au moment de peindre tous les murs, de, de, de, de remonter les portails, de faire revenir l'électricité. Donc, euh, ils sont tous été avertis. Seulement qu'ils ne croyaient pas. C'est ça la réalité. Nous avons di xalal boppam pour defar gare routière bii pour waa département bépp am lu leen neex ci gare routière bii ba nga xam ne kenn dootul jëm sol sac dem Dakaaru gare bi nag dafa am nu mu demee woon yàgg lii yàgg nañ ko bëgg ndax département bu toll li Tëngéej war na boo xam ne fu waay jógee mën fay ñëw pour mën a euh, jàll fa nga jëm waaw ba nga xam ne toogaay bi dafa jëkkul woon kon yàqaluñu kenn dara du Pape Sadji du Fallou Samb moo xam dafa jël ci soo yàqal kenn dara lii lu jógee ca kaw la ki ñu bokk yil mu ministre bi moo ni nan defar gare routière yi ndax ñaari département yi ñoo fi ne kon jàpp na ni waa Tëngéej war nañu am garage boo xam du ñu jógee fii nag di dem Pikine waa Pikine waru ñëw mën a jógee Pikine di ñëw Tëngéej kon looloo tax ñu nekk ci gaaru ceer pour defaraat xar kanam bi nag génnewuñ kenn boodiwuñu kenn waaye li wértu wóor nit boo koy am muy sa gan war ngaa bale fa mu ñëw ba mu set ba bu ñëwee naw loola ñu defar gaaru ceer képp ku gis gaaru ceer Tëngéej xam ni xar kanam bi sensé na parce que ay nit lañ te fi leen dëkk lii nag defuñu ko yàlla ma ko wàcc mi mbas mi yàlla ko fi yàlla jëlee jàmm ñu àndandoo defar dëkk bi askan wi ñoom autorité ñu noppulu ndax d'après les mesures édictées par l'État, on nous a sollicité euh, de vraiment tenir compte même de l'interdiction des petits commerces. Parce que pour, pour, lutter contre le virus, on doit d'abord éviter le contact entre humains, comme on nous a dit. Avant chaque départ de bus, il y a une équipe qui doit rentrer dans le bus pour sensibiliser les passagers. Même au lieu de, rester euh, chacun mieux dans, sa place. Donc même les contacts, les discussions entre clients sont interdits. Bon, on interdit le chauffeur tout contact extérieur du bus. Par exemple, des fois, vous le voyez, tu peux même acheter un journal par un intrus que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas s'il a le bus avec lui et que si une fois que ce journal rentre dans le bus, donc tu peux propager le virus dans le bus. Donc on interdit tout contact extérieur du, du bus. Donc tout ça, c'est des, des, éléments qu'on n'a pas encore bien maîtrisés, mais on, nous sommes prêts pour sensibiliser tous ceux qui sont dans cette gare routière. Nous avons nettoyé aujourd'hui, vous savez, il faut que vous tabla mangi. Sénégal, gep ñoo Sénégal, di woo te nga gare routière bi ubbi na fépp jëm ci interurbain oto ma gare routière bu ñu li fi war dañ ku nekk da nga indaale sa identité foo jëm da nga indaale sa identité ndax dañuy jël sa numéro jël oto bile la yëpp xam fi nga déparé xam fa nga jëm ba bu ëllëgee lu am ñu xam ni foofu la déparé ñu nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla bu dara jógee fii suñu jëm feneen yàlla lépp jeex si kàttanu yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa ñoo ngi leen sant